asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki senegal fu ngeen mënti nekk fu mën ci dëkk ci biir réew mi wala bitim réew man Abdoulaye Wilane maire Kaffrine député à l'Assemblée national waaye porte parole parti socialiste maa ngi di ziyaare di leen ndokkeel ci fekke gi ñu fekkee njeexteel at mi ak yaakaar gi ñu yaakaar dugg ci 2019 di ñaan yàlla ñu dugg ci jàmm dund ko ci jàmm yàlla saxal jàmm ci réew mi defal ñu naataange xéwal yu bëree bëri ba ñëpp nekk ci yokkute bu ñëpp yëkk ñi ngi dugg ci at moo xam ne am na ay élection bi ci jàkk mooy élection présidentielle bi ci topp mooy élection locale maa ngi ñaan yàlla ñëpp dugg ci ak mat ak dal jiital intérêt réew mi ndax ñëpp yaakaar naa ñi def politique intérêt Sénégal moo leen ñor bu loolu amee kon nag ci turu parti socialiste ci turu mairie bu Kaffrine ak en tant que député de la CEDEAO maa ngi ndokkeel ñëpp di leen ñaanal yàlla atum jàmm di leen ñaax di ñaan yàlla ñu fekkee ko déwén ci waxtu wi maa ngi ñaax suma mbokk part socialiste kenn ku ne continuer gëm li mu gëm gëm li mu gëm mooy tax nga nekk socialiste waaye gëm li ñu gëm mooy tax ñu nekk ci biir bennoo bi te dëggu te fexe li ñu nekk ñu am ci ndam ñi ñu ko seqal lu mu leen jaral rek ñun lu ko gën a yiw te gën ko farlu gën ko dëgër nañu ko jaral lii daal mooy voie yi nga xam ne ni ñu ko defee woon daaw ak at yu weesu bëggoon naa ko def di leen ndokkeel yéen ñëpp ñi ci biir réew mi ak ci réew mi di ñaan yàlla yàlla nañu ko fekkee déwén ci waxtu wi te bu déwén namee ñaaw yàlla dàq ren